leen di baax ndax respect bi ngeen di dawal suma diggante ak yéen gis naa ko respect bi ngeen di dawal sama diggante ak yéen dafa yàgg te gis naa ko kon liggéey bi ngeen di def yàlla na ko sunu borom barkeel ndax ñu ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg muy le senegal aille l'avant maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax maa ngi leen di remercier monsieur. yow gaynde nga. yow da ngaa a way. ndeysaan yow doo moroomu barki Seydina Muhammad. amul lu may ragal yow yaa dàq way ci àddina yow koo la dàq way rek respect bi nga ko jox la. mais yow say octave ak sa baat yow yoru ko ci àddina yow da ngaa way de. Papa Diouf a jox ko baay dootoo pour maa toog nga toog États-Unis ñoo la soxlaa gi Europe ak Asie Océanie Belgique ak fépp yow naanaan nga eh, yow ñëpp lay jox respect yow eh, yow ñëpp lay jox respect wala lay moroom kenn yow gore baax nga doo def dara ngir ngistal koy may danga koy nëb yow Pape Diouf li ngay defal li ngay defal nit wuy ma li ngay defal nit ñi yëpp li ngay defal nit ñi te kenn yëgu ko barki Seydina Mouhamad buñ ko waxoon fii àdduna tukki kii du def ngir dara du def ngir kenn gis ko maa leen koy wax ngeen di dégg barki Seexul Xadim laa la wax Serigne Touba rek laa yaakaar kii li muy def te kenn gisu ko buñ ko waxoon àdduna tukki barki yaa rasulullahi du def dara pour kenn gis ko